du président de la république waaw dafa mën a mel ni baare baa ngi waaye ma nuyu rek Mansour Lo Alassane Lo Lamine Ba li mooy drapeau Omar Sow mooy biir rek drapeau Omar waxoon moo nekk nii Bachirou Omar Sow moo ko fi indi moo ko représenté tey ñoom ñuy xëccoo yëmbal ak Baara Gueye ñoom ñoo fa nekk. ak les amazones de Oumar. ndeysaan. ñoom ñaar. Boy Pire Alliance Baldé Basiru. eh Alliance Baldé dóor Boy Pire eh. dóor na ko daw génn géew gi. <laughs> la ilaha illallah. eh wa du daw. <laughs> Boy Pire jël nga coup Boy Pire jël ma musul gis da koo dóor mu daw génn géew gi laa ilaha parce que musuma gis mel nii koo dóor mu daw génn are gos da ko laa ilaha illallah musuma gis lu mel nii Basiru musuma gis lu mel nii ci lamb alias ba nekk booy pire ak alliance Baldé ñoom ñaar combat spécial baa ngi nii drapeau Amadou Xot Omar Sow ma ko fi teewal tey ay waay waay mbokki adduna mbokki wasaare lamb mbokki Dakar waaw waaw jël na la jël na la Alias Baldé jël nañ la ba nga jeex Alias Baldé boy pire Alias oh, waay daan na la waaw waaw na ko daan na ko Basirou daan na ko daan na ko lamb ji jaxasoo lamb ji lamb ji jaxasoo na waaw jox nañ ko victoire Alliance Baldé daan nañ ko Boy Pire daan na